wante yi ci bare bare yow it wax li ngay def xamoon ni baax na ci yow it wax li nga def ñu dendale kook wax jeneen moo gën moo gën waaye diw def na diw def na diw def na diw def na waaw yow nag loo def tax sama benn jarbaat ni ma waaw yow sa détracteur yi ma ni ko déet jànguma tubaab de ma ni ko ay boo nee détracteur juum del wax les détraqués ma ni ko jaaral foofu ma ni ko ndaxit am na loo xam ne pour la ndax fii dañu am benn défaut mooy duñu faj borom barke ku ñu yàpp la ñuy faj duñu faj borom barke ku ñu yàpp lañuy ñuy faj nee ñu docteur ya dañoo daje médecin yëpp daje ñu ne dee jaaxle ndax bëgg nañu faj nit ñi de waa dëgg yàlla lépp la nag tubaab yee ko lépp nu bëggoon daal ngir yàlla nu seet ndax nu it dañuy feebar comme nit ñi te dañuy soxla ordonnance comme nit ñi ndax sunu bopp ak sunu njaboot te it bëgg faj nit ñi it ba ñu wér nanu seet naka lan koy defee ba xam bitim réew la nuy dem wala fu nuy dem nu dimbalenu ba nu am doole faj nit ñi faj suñu bopp ba ñu d'accord ci loolu am ca kenn ku leen ni yéen dal yéen a tardé rek ñu ne ko lu tax mu ni yii ngeen di wax yépp ak baax la te baax jeex na quoi ba nooy def mu ne maa ngi wuti clinique pour di jaay jàngoro pour di jaay jàngoro waaye ba ca déwén sa mujj na ñoom ñu ñee ko ndax li mu jaay ci jàngoro la mu caam ci alal kenn xamul na mu toll ku bëgg a feebar rek ñëw ni ko docteur dama bëgg a feebar clinique ba fees del kenn amatul foo taxaw ñu ni man si biiru laa bëgg ñu ni lii man lii laa bëgg am ca kenn nag day saan ku toll ca parenteer ba man ko naan docteur moi qui étais venu vous voir l'année dernière. Vous m'aviez donné de la grippe que j'ai gardée tout l'hiver. Mais malheureusement, je ne suis pas mort. Je connais votre patron, il a beaucoup plus de chance que moi. il est mort la semaine dernière.

defna ci mom sax marsiya wa pour jaale ko Chirac yàlla xam na ko tabarkalla tagg ko ci lu ne wax la ko waaye tubaab yi dañ ko tëralal ben léeb ni ben journaliste def ko niko qu'est-ce que la gauche a fait depuis six ans benn journaliste wax ko ko mu sëgg ba mujj mu siggi ni ko je me demande moi-même mooy defuñu fi dara lépp la waaye jaar na yoon waaw ba tax na kon nag ñoom itam dañuy taxaw beneen taxawaay ndax nit ki nag boo ko coloniser lu day noonu jamono dem ba àgg fii nag da ngay jël say responsabilité moo gën boo ko defee rek ngeen gën a mën a jaxasoo bu ñu wàññee riba bi rek mu baax waaw man jaar naa foofu yëpp te yàlla xam ne ni wut alal taxu waaye jàng àdduna tax ndax nag dafa am lu ma mënul man mooy nit jàppe ma otage wax naa ko président Abdou wax naa ko keneen bu fuyee daan naa ko ko wax buñ ma waxé mani duma dugg ci industri mukk ndax ku ci dugg rek di jàng waaw doomu commerçant la babacar si commerçant la maodo commerçant la alaaji du kan commerçant la kon nag commerçant rek lay mën a nekk lu tax parce que ci commerce ci ngay gën a néewe nekk moo tax boo duggee ci industrie rekk di jàng yi nga tiitaroo yépp doxul jàng rek maa la ko wax takk karawaat ak monsieur le président nga naan maay président société bi yii yépp dara du ci dëkk doo président dara dara dara

ñu di ko wax Fernand Fibo mujj na nekk ambassadeur de France ñu indi ko Dakar mais bi nu nekkee xaleel dañu bare woon affaire boobu lu ñoo wax entente coopérative moo fi nekk nekk fële ca wetu couloir Rouge li ma dajak camion ma daan ko sama bopp 1959 laa am sama permis camion ca Paris waaw sama permis voiture camion yëpp Paris laa ko passé booba Paris melul nii di xëy di dox ba jant sa doo gis nit ku ñuul waaye booba ña doon samay xarit ay kilifa lañu te itam gëmewuñ ma woon ndax Babacar Sy yàlla xam na ko fi ma jaar ak ñoom yépp li ma mujj def ci senegaal mooy Sococim bi ah te Sococim li ko sabab taalibe ko sabab bu ma yéene jàmm ku xam ni sama wëllëre la tudde na ma doom dajeeg man rek ci hasard à Paris ni ma dama am xaritu allemand yu bëgg a def usine ciment est-ce que doon nangu pour collaborer ak ñoom ma ni mu indi leen booba président Abdou mi premier ministre la dem wax koko ko mu ni ma bu ko kenn yëg buñ ko yëgee mu yàqu président Senghor moo ma daan wax boole tubaab wolof ni ma Cheikh ma ni ni ma les Sénégalais ma ni ni ma ils sont añaande <laughs> wallahi anyande e waaye man jàng laa cee wut ba ñu itam am fa jarbaat boo xam sama jarbaatu bopp la bien que allemand la man rek lay noyyee te wàllu jikko rek ñu boole mu ni ma mag ñi kenn du leen wax dara mais projet bi du dox ma ni ko lu tax mu ni ma diggante France lay doon ak Allemagne mu ni ma c'est politique te wax na dëgg xam-xam ba mu fa jële jar na lu nekk première réunion bi ñu doon def rek Senghor def déclaration ci chantier ci kablaate xawma ya ca des déclaration pour djexé 3 trois minutes après une ambassade bi ci Dakar a laissé déclaration ba fa ñuy déféré ñu pour wone ni du parce que france est opposé c'est normal famille ababakar mi ñu France ñeenti siècle di fi réaliser lo xamné ne jëlewuñ ko ci France xana jëlé ko ci Allemagne yi kooku sen gatché la duñ ko nangu politiquement c'est il n'y a rien de plus normal moo ñu sànni ma su ko si dañ mako ko rek taalibe ngi yalwaan usine na ngoog mais bi ma seetee situation bi lan lay doye usine entre nous pour ñu ni ma monsieur le président président quoi ah ma merci président yónnee si Abdou ni bu mu ko bàyyi mukk ndax nit ñi dañ ko tudde ma ko je ne suis pas industriel je suis commerçant Ni la guise, ni la gisee ni la gisee Habib Jamni ni ma dit que ko ne ko parce que je ne suis pas industriel je suis commerçant axtaaru tijara ala sinaa axtaaru tijara ala sinaa Alaaji Abdou Kan commerçant la woon Alaaji Malick commerçant la woon Babacar Sy commerçant la woon bu Babacar Sy ba rek moo doxul parce que daf jarax yëfu sëriñ te Maodo waxoon na ko ni ko sol mbubu sëriñ ak commerçant su commerce yàqu boo bëggee nekk commerçant pire mu ni ko da ngay summi mbubu sëriñ teg fële loolu la ko Maodo waxta respecté wu ko te Maodo ko lebal capital mu dem jëndi ay diwam ak ay dugubam lu luye ay wagon euh, euh, lonk ko ci saxaar gi ñu daan tudde yi ajoor yi daan tudde sikson sikson saxaaru sikson mooy saxaar yu bon yooyu nekk ci àll bi di def jëf jëf jëf jëf jëf mu dem luyee caay wagon indi marchandise ma Dakar fàttali ko Maodo waxoon ñu ni doomu Maodo ñëw na rek ñëpp daw di ko ziare ci ah moom it mu jël marchandise ma jox ko Mamante. te maam Anta gën tabe ci àdduna te Maodo mosu koo jox marchandise mukk lu mu dimbalee jullit yi rek la ko daan jox moom it mu jël marchandise ba séddale ko jullit yi ñu toog nag ba mu foog foog ni jaayal nañ ko ba yëpp pare mu ñëw ni soxna si affaire ba na mu def mu ni ko ak ku ci war a am rek am na ci nee na nag may ñëw di seet si mawtu maa ngi jaaxle ba ndax capital bu la jëkkoon moo ko def ni ma jënd ay yëf yu ma koy neexal mais fekk ci baatin xam na yëf ni ma ñëw toog rek di nuyoo mu sévère lool ne ma génn yi ma ko jëndal indi jox ko saxaaul muflis

waaye ne Maodo yi ma ko indaaleel yëpp rek maa ngi gis mu sewee rek bu ma juma ni ma waaw sa affaire ba naka la def mu ni ko doxul de ni ma foogoon naa ko ne ma rus lool wallaay ndeysaan ne pour ma rus cëmti ko nag ma dellu si ni ko dama bëgg a bay pour rus cëmti ko kat te ma ni tekk ba mu yàgg mu ni ma li ma ci gis day mooy sutur génn ci te doo ko jariñoo am mbay dafa am lu mu laaj ba laaj nga bàyyi ataaya bàyyi bi fi teg bàyyi ceebi jën yi ngay def ci biir kër gi yëpp kuy bay daf koy bàyyi neem ba ma demee lu affaire bi xam ni moo waxati dëkk nee ma dem ba mu yàgg ma xundu ñëw ni ko dama bëgg a tox mu ni ma foo jëm ma ni ko soo nee di pat rek ma dem ba ca gannaaw ëllëg ñëw ni ko toxu ba bàyyi naa ko mu ni ma dara nekk ci mu ni ma waaye mosuma gis mukk góor gu mel noonu nee tàng ji muy def commerce gëlee mam yi nit camion yi mel noonu la meloon ñëpp xam ko ci bi muy jaay tokkoro yi le jigen ñi tak agida di jaay saatu wat ma mawdu yoy yep mu di ko jaay bu ñu duggal ko ci rikilees RTV Dakar yéen ñi abonné gul abonné len gaaw ba sàlli kulus notification bi ndax moy tax ngeen di am lepp lu fi bayiko jaa ngeen jëf